wa inni auzuha bika wa zurriyataha min asaytaani rajim rabbi auzu bika min hamazati sayaatin wa auzu bika rabbi an yahduruuni mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yéen ñi nga xam ne ne safoo seen bi di diwaan TV ñu ngi leen di nuyu baax te leen jaajëfal te rafet la ànd bi ngeen ànd ak ñun dañaan sunu borom mu defal ñu jàmmi àdduna ak jàmmi àllaaxira sutura sa àdduna ak su àllaaxira di wax ni ngeen wéy di abonné ci chaîne bi tey partage vidéo yi di leen jaajëfal bu baax a baax a baax comme neen ko baaxoo def saa su nekk rek tey ñu indil leen lu am solo lool ci wàllum kaaraange ata loolu ñu wax ni képp koo xam ne bëgg ngaa seetlu say mbir incha allahu rabbi buñ ci jokkoo mën na la koo jàppandala lool incha allahu rabbi waaye képp koo xamante ne am nga yitte ci ndomba gi nga xam ni ko ko am loolu kaso moo ngi fi waaye cëwri bet tam moom itam mi ngi fi incha allahu rabbi mbokk yi woote ñoom di laaj ba xam nuy def ba jot si. incha allah képp koo xam yitteel na ba nga bëgg ko moom buñ ci jubboo ak ko mën a nekk ci réew mi incha allah dinañ fexe ba nga jot ci ci loo xam ne lu am benn coono bu la neexee juru ngay jóge fa nga nekk dinañ fexe ba nga jot ci bu sooba yàlla incha allah ak mën a nekk ci réew mi waaye garab goo xamante ne tam dafay dolli kàttanug moom itam am na fi incha allahu rabbi képp koo xam ne yënga sa bopp ne da nga am néew kàttan ci wàllu sëy lool incha allah am nañ ci garab gu am doole lool sax. waaye garabu hémorroïde tam am na képp ku hémorroïde sonal mooy bu génn bi ak bu nëbb bi incha allahu rabbi mën nañ ko faj ci lu jàppandi lool sax bu la loolu duyul tam bu la neexee mën ngaa téye li nga yor ba kër ngay wér nga door ko joxe ñun sunu garab wóol leen ko bu baax a baax incha allahu rabbi waaye ba tey tam mbokk yi am nañ fi béykat boo xamante ni bii képp koo xam ne takk nga ko moo xam danga ngaa def loola yoon di wëree. incha allahu rabbi moo xam nga def loo xam ne daal rëy na ba yoon ak lay wër bay jën bi képp ko takk incha allahu rabbi saa bu la yoon di wër ba mu demee ba nga xamante ni ñoom ñoo ngi ñëw dina sab ba nga dékk waaye bu sabee na nga jug ku dugg ci oto tam oto ba nara def soq bay jën bi dina sab ba nga dékk waaye mu sabee rek nanga nga wàcc oto ba incha allahu rabbi tànk yaa ngi koy takk muy féetoo sa wetu ndijoor bu la yoon doon teg si loxo war a ñëw sa kër nar laa bett tànkam mi ak dina sab ba nga dégg waaye nag boo déggee sab gi rek nanga nga jug dem daal di wut foo aw incha allah moom jàppati na fi lool sax waaye tey ñu dikkal leen ci lu am solo lool muy wàllu kaaraange muy saar bi nga xamante ne mooy tabat yadaa abi lahabin wa taba maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasaba sayaslaa naaran zaata lahabin wa imra'atuhu hammaalatal hatabi fii jiidihaa hablun min masadin char bu baree njariñ lool nga xam ni sunu mbokki soose yi ñu ngi ko tuddee batuta ngir doy waar gu mu doy waar ci mën a eskante nit ak mën a yàqal doomu aadama nga xam ne ku xam na ni saar bii suñu borom di tënk Abu Lahab ak soxnaam ñenn ci borom xam-xam dañuy wax ni dañ bu suñu borom doon koy saaga mën na ni daa saaga da koo saaga ci saar bi ñu baal bu baax ci kàddu gi waaye sar bii ngay bind mbokk yi ñetti yoon danga koy bind ba mu jeex ñetti yoon nga koy bind boole kook dareeti nagu dëj dareeti nagu dëj sangoo ko lépp lu la waay def mu dellu ci kawam incha allahu rabbi lépp lu la waay def mu dellu ci kawam danga koy bind ñetti yoon wut dareeti nagu dëj nga sangoo ko lu la waay def lu mën a doon mu dellu ci kawam incha allahu rabbi kon loolu leen indi loon ñu ngi leen di jaajëfal lu baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen di wax ni ngeen woy di abonné wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu